Curte sua jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, rajo Futur Média ñu ngi leen di gërëm bu baax baax ci suba léegi ngeen ñi gunge ci suñu ay programme di gërëm bu baax également euh, rédaction bi ak El Hadj mi fi jóge léegi ci euh, penco bi di gërëm Abdoulaye Diop également ci technique bi naka noonu ñu tàmbaliwaat xalaas di seen journal fin d'hiver bi nga xam ne bés bu ne bu ñu xëyee dégtal leen ko ci rajo Futur Média ànd ci ak l'incontournable passe partout salaamaaleykum. waaleykum salaam sama di jëkkal si maa ngi naa la de waaw am na information ba mu war a jox waaye ba tey joxaguloo ma ko <laughs> xibaar bi damaa bëgg xam sama xarit boobu lan la fi doon wut xibaar bi mu doon wut ci rajo bi naa la ko jox maa ngi lay ziar bu baax naa la ko waaye di nuyu auditeurs yeeg internet di ziar ñëpp jërëjëf leen ñaanal jàmm fépp fu ñu dégloo ci àdduna bi ci waxtu wi jërëjëf képp kuy doomi Sénégal ñu ngi lay ñaanal jàmm macha allah di nuyu bu baax a baax sama waa delloo nañ la ko parce xanaa di gërëm partenaires yi nga xam ne rek ñoo ñuy euh, gunge ci euh, li nga xam ne moo di euh, xalaas bi waa Mion borom téléphone yu rafet yu jekk yi bokk na ci di Mm-hmm. bokk na ci bokk na ci librairie papeterie Mouhamed dañ koy dalal mm-hmm. euh, borom kay yu baax yi mm-hmm. borom kay espoir nee naa la fi mu nekk nii moom école yi nii di ibbi kal waaw kenn jooyati kay yu baax bu kenn jooyati protège yu baax bu kenn jooyati fourniture yu baax ndax qualité ba papeterie yi am na fa bureautique dañ koy def librairie papeterie Mouhamed euh, am nañu Bourguiba am nañu Sandaga am nañu Kaolack mën ngeen woo ci 77 633 21 24. 77 631 21 633 21 24 kooku mooy libre Pape Mohamed. mi woon aussi wax nga ko. Hmm. téléphone bu baax bi. macha allah moom laa yore nii moom laay wuyoo nii ci xalaas bi. xam xalaas bi foog mu am xamante ni. waaw batterie dafay dafay dafay dafay yàgg. dëgg la non seulement batterie dafay yàgg. Hmm. écoute ba leer na. Hmm. connexion bi gaaw na. caméra saa yi boo selfie ñu fàtte lépp. macha allah dégguloo ma de. mi wan mi wan ma nga ca Grand Yoff en face euh, église Saint Paul. 77 565 66 77. waaw 77 565 66 77 wala am na ñu fépp foo dem ci réew mi. am na solo mi wan am na fa. macha allah établissement waa Kër Sëriñ Tuubaa Fall Frère ñu ngi leen di gërëm Moutine nuyul ma ko Moutine maa ngi koy ziar Moutine Moutine xaw ma ndax mi <laughs> euh, waa Kër Sëriñ Tuubaa waaw Kals waaw gaamu hmm. xam nga yooyu temps yi dafa bari waaw dégg naa loolu moo lay dàqal say yoo uh-huh. vite fait mu ci loolu gàmba mm-hmm. am na frotté vite fait boo xam ne mm-hmm. say yax say articulation lu ci metti mm-hmm. frottel vite fait mu bàyyi indi na la crème épilatoire boobu moo xam naa ne jigéen ñoom ñoo koy gën a ah, ñoo koy gën a ñoo koy gën a yittewoo savon king hmm. aloe vera la am na day anti acné euh, boo ko sangowee da ngay naay taxaw da ngay naay gis nga temps yi ni ma leeree di belli dem gis naa da nga belli loolu laa koy yaasin léegi da nga gën a boo yàgg na xam naa saabu établissement Wack Serigne Touba Fall 77 555 11 11 77 806 15 19 optique vision plus Sénégal lunettes yu baax yi borom bët yu baax yi. Ah. xam nga nag ñoom bu ay gàmm ñëwee wala màggal. Hmm. dañuy def ay social. Mm-hmm. moo xam gàmm Medina bàyyi moo xam màggal Touba moo xam Ndiassane wala euh, Seydina Limamou Laye. Mm-hmm. dañuy def ay social instant mm-hmm. gàmm gi dañoo ànd ak association de l'unité de France. est-ce que dañuy def benn euh, consultation gratuite. du 29 au cinq octobre foofu ca Tivaouane. waaw fi ñu wax école 2 ba nekk ca Ndut. dañuy def consultation gratuite. Mm. xool maanaam kenn du fay dara waaw. Mm. Euh, ku leen bëgg a jot mën ngeen woo ci 77 442. 14 14. 14 14 77 442 14 14 14. merci beaucoup ñuy gërëm partenaires yooyu bu baax a baax a baax Paas. Mm. ñu bu dee amoo xalaas express ñu dugg ci xalaas bu tey bi rek tàmbali. Kals dañoo tëj dossier boo xamante ne du gaaw a tëju. mooy ban Kals dëkk baa ngi toj ndekete. waa ci réew mi ñëpp a ngi fàq jëm Côte d'Ivoire ñu leen di nax. Côte d'Ivoire gi waaw. ay liggéey da ngay fayee ko six cent mille da ngay fayee ko sept cent mille ñii ña fay faatu ñii ña ngeen fay torturer ñii ñii cest à démb dama ko Côte bi bii bii bii gis nii hmm. démb dama commencé woon ci benn renseignement généro hmm. koo xam te ne fii la nekkoon nekk armée hmm. comprendre nga dem ba dugg renseignement généraux benn xale bu jigéen bu mu xamante doon Casamance kooku dem euh, Côte d'Ivoire fexe na ba bàkk bu yóbbu ko fa commencé woon na démb ci jaar-jaaram. Mhm. Euh, li mu dund ci yoon bi diggante Mali ba Côte d'Ivoire ba ba mu fa eggee léegi euh, laay euh, xaaral dafa dafa dafa am benn bu bu gën a bu gën a kii woowu dama dama dama jaawale. waaw. voilà jox ma jox ma jox bi laay un bi. waaw léegi mhm. dégg mhm. kii aussi. da doon liggéey moom doon liggéey liggéeyam. benn femme bu mu nekk doon Kaolack ñu séq teraanga séq lépp comprendre nga. waaw femme bi. bi muy dem Côte d'Ivoire waa ji moo ko la lebal xaalis. waa ji mu doon liggéeyal. femme bi fexe na ba dem na. waaw euh, baat na waa ji ba waa ji fekk na Côte d'Ivoire waa ji ba muy dem la mu fa dund ak la mu fa fekk ba ni mu ñibbi suwaatee ak li mu li mu daj ci yoon ndaw see ko fa jiitu mu fekk ko fa waaw la mu fa dund lañ bëgg a wax déglu fa liggéey dañ ma fa affecté woon nekkee ma amoon ku ma xamanteel foofu noonu ñoo bokkoon même koñ ma xam seen famille bon ñu dund lu bari ci teranga ci xam nga rek ci lu rafet ci lu baax donc benn gel la léegi par la suite nag moom mu wax ma ne dafa am benn liggéey bu ñu ko doon proposé Côte d'Ivoire ko

di liggéey entreprise bi mi ngi tudd SIL SILE société internationale de libre échange ñoom ci tout ce qui commerce international import export ci la yëngu transit ci la yëngu te société bi bien vrai que société bu am la parce que man j'ai vu sur le net que société bu am la mais ñoom dañuy jël turu société boobu mu boobu ko pour mën a arnaquer nit donc après ci la ma woo ne ma dañuy soxla benn responsable marketing communication ma envoyé

sax vol laa naroon jël pour dem après la cela def réservation ñu ne ma vol pour le moment c'est pas disponible donc vol le 26 la alors que man sama entretien le 20 la ci laa ko expliqué ko ne ko ah pour le moment puisque amul vol bàyyi ma jël yoonu suuf bi jël benn billet pour ba Côte d'Ivoire te yoonu suuf bi li ci nekk ci ay coono ay tolof tolof ay métit ay torture yéenuma ko benn Sénégalais ma jël yoonu suuf bi départ vendredi jaar cent mille yi presque ci policiers yi laa ko jox yàlla def bi ma demee ba agsi foofu mu nekk lundi la lendemain ma war a nekk sama entretien ñu ñëw dalal ma jël si ma au niveau fi ma wàcc ci garage bi léegi biñ ma jël see biñ ma jël see si laa ñëw ne leen carrément fan la entreprise bi nekk en plus sama sama entretien déjà fan laa koy defee adresse bi et ñu ne ma léegi bu subaa danañ la yóbbu fa ngay defee entretien gel bi moo doon waxal noonu moo ñëw jël si ma yóbbu ma ci oto gel bi mu doon waxal xamante ak moom Kaolack sëkk ak moom teranga ba lebaloon ko xaalis mu dem. complice la xanaa. mais naturellement c'est-à-dire xam nga Kalsoum li problème bi man su ma demee lañ ma fa wax fekkuma ko fa. Mhm. dañ naan ma jéem la indi kenn ko indi xaalis en fait du marketing du liggéey du dara genre pyramide de Ponzi la yow koo indi bu yónnee xaalis nga ci am pourcentage. mais ay 300000 cent mille dafa tuuti di. léegi nag la question xam nga lan la. waaw mooy ni yow Kals indi ku ma xamul. parce que man tey mënu maa jig-jig xool sama téléphone koo xam ne xaw ko nii danaa nii deef ma woo ko ne ko kaay code am na say nit daal ngay jéem dangay xool koo xam ne moom nga miin loolu moo tax affaire bi neexut a xeex réseau la bu garaaw a garaaw léegi waa ji yegg na egg na Côte ñu déglu déglu mën na leen entretien bi fan la parce que normalement man mës naa naa def entretien je nga koy def ñu bi ñu si ma dañ ñu ne lii nekk ay ivoirien ay ay sénégalais comprendre ay burkinabé ay béninois ma ñëw comme entretien na leen solu ba nice ñu ne ma ah toogal nga xaar ma toog xaar après benn groupe de personnes ñëw ak gel bi nga xamante moom laa ci moom laa am confiance mu yóbbu ma ba foofu ñu def entretien bi ñu ñëw naan ma non lii ci marketing de ngeen di wax lépp naan ay SIL société internationale tout ce qui est salaire kon li ngeen doon wax lépp dara du ci dëgg ñu ne ma non ma ne leen lan moo tax kon femme bi bàyyi ba waxuma ko alors que li ma dund moom ma nekk Sénégal waxuma lii lépp mu bàyyi ba ma ñëw ba fii may wax ne

xeex ak ñoom du andi fa boucan bu rëy ba ñoom ñi fa nekkoon yëpp xam nañ ñi ni ay arnaqueur lañ parce que ñoom dañuy exploiter nit yi di leen nax am na Sénégal yu bari nii lañ leen def mais mënuñ ñëwaat ndaxte amuñu ngor pour ñëwaat di leen di expliquer li seen famille mag andi fa boucan bu rëy na leen sama cent mille francs di ngeen ma ko jox wala ngeen jël sama bakkan problème bu rëy presque deux jours may xeex ak ñoom foofu noonu ci lañ obligé na ne kii nañ ko bàyyi jox ko cent mille parce que dama leen menacé na leen damay dem ambassade Sénégal te su ma fa demee dinaa leen mën dinaa leen boole parce que ce que vous faites di mbubboo ay turu sil ay turu entreprise di arnaque ay nit moi je vais pas l'accepter te dinaa leen dinaa leen démasquer ci lañ jëlee cent mille francs jox ma

jigéen te war naa mën a créer waat sama avenir gis naa fa ay jigéen ñu nga xamante ne dugg nañ fa ñenn ñu ngi leen di menacer ñenn ñu ngi leen di kidnapper ñenn ñi sax ñu ngi leen di tëddee te loolu c'est pas normal te ay sénégalais ñoo koy def seen mbokku sénégalais parce que ñoom man su fekkoon ay ivoirien ñoo ma woo wala ay béninois man du ma mës a dab mais imaginer koo sekkal teranga nga bokk moom koñ nga xam famille mu xam sa famille ngeen nekk kooku moo lay woo expliquer loolu lépp pour que loolu te niñ ma ñu ngi koy def ay sénégalais instant ba ci copain ni ñu ngi koy ko proposer loolu mais li lii mooy li ñuy wax naan. bi xale bu jigéen boobu gorewul ah. mais complice la. dugal na ko te kii bu deewoon foofu tam mooy responsable bi. Kazi man ne la yow euh, village yi damay fàtte tur bi damay fàtte tur bi village bi mi ngi fii côté après Thiès yooyu noonu. Mhm. am na fu booy boo xam ne seen benn mbokk bu ko jegee moo ko yóbbu seetaale woon mu dee fa. dee jàll na ci xalaas bi te balaa balaa muy dee parce que lekk nañ ay seen mbokk yi lu mat parce que million. léegi fi mu nekk nii sawaay ñibbisi na mi ngi ndakaaru sawaay ñibbisi na xam nga léegi luy problème bi mhm. mooy gis nga fi mu nekk nii yaa ngi wax nii mhm. boo yaa ngi jaar Mali jëm Côte d'Ivoire waa Côte d'Ivoire lu fa am te amul Sénégal non mais dañ lay ndax kas dama ne la tey jii man ak yow fi ñu jaar nii man ak yow fi ñu jaar soo jékki-jékki woon rek man ma tukki jékki-jékki message ne la kalse gisal naa la benn bunt boo xamante ni waaw mais da nga naan paas mi seeqlañu boo xam ne du ma dugg ci lu ñàkk la loolu moo tax da koy wóolu ki la jege kese moo la mën a def da nga koy wóolu bi nag dafa am benn problème bu ci nekk hmm. mooy ne tey mënoo jóge Sénégal di jaamale jëm Côte ñu lay tere parce que yaa ngi biir CEDEAO waaw comprendre nga hmm. mais ñi ci frontière man ñu ci bëri woon nañu bëgg ni ma boo xamoon ñaata nit ñaata jeunes ñooy jaar fi góor a jigéen pour dem Côte d'Ivoire ci détails yooyu noonu kenn mënul wax ñaata la surtout jigéen ñi man moom jigéen ñi ñi ma ca xam ñi jël yoonu Côte d'Ivoire bi bari na na ci ñoo xam ña nga fa ñenn ñi ñi leen di torturer ñeneen kenn def leen dara dañuy dem ba kalefa banque ñu woo seen waa kër naan ay dañ maa tëj fii dañ maa takk dañ maa laaj xaalis fekk dara du ci dëgg dara du ci dëgg. léegi waa ji moom yegsi na waa ji yegsi na ñu bisi na suñu renseignement généraux bi aussi. waaw xam naa moom dañ koy egg moom vendredi fii ak vendredi laa koy eggal ndax moom élément am tamit élément bi gudd na moom tam lu mu moom lu mu dund moom ñii dund ñu xaajam. te lépp Côte d'Ivoire la. lépp Côte d'Ivoire la. yii diggante Côte d'Ivoire xanaa dafa yàgg. ah yàgg. lanti réseau bi mais lii yàgg na xam nga dañ daan nekk fi naan dañ lay dugal ci ay marketing de commune marketing xaw ma lan marketing réseau affaire yooyu noonu mhm. bi ñu demee ba Sénégal nand ko nag dañuy changé tur bu ñu demee jël benn entreprise bu bu bu benn multinationale jël turam naan la foofu lañ lay dugal dañ fa am benn filiale fekk dañuy sóob même yi nekkoon fii la même yooyu la ñuy def foofu d' accord suñu ambassadeur yi bi bi nekk foofu yëg na lii léegi lan la ci mën moom xanaa intervenir ndax nguur mën na yenn mën na mën na mën na mën na jóg ci yenn yi. waaw mais Calze man maa jóg interpeller leen. man maa maa proposé liggéey. Mhm. kenn dàqu ma. Mhm. kenn takku mu yóbbu waaye li ñuy def foofu du lu legal ndax gis nga bi ñu ko menacé bi mu menacé ni day dem ci ambassade bi pour boole leen dañoo xaw a daw. waaw mën naa lay wax mooy seen marketing de réseau yooyu ñu lay ah, proposé. voilà donc euh, autorité itam war nañ ci jot parce que ay doomi sénégalais lañ ñu dem ci beneen dëkk. am na sama benn sama benn waay. Mhm. bu jëloon démb taxi. Mhm. fii ci place de l' indépendance. Mhm. dafa génn ci BOA bi. retiré fa un million. <laughs> dafa ko ci enveloppe na da koo paqueté woon noonu millions ci taxi yi moo ma jaaxal. dugg ci taxi fàtte ko ci kanamu. taxi bi ko xaaju million rek bu soobee yàlla ci taxi. taxi baal ma lii dafa maa ñor. Ah, dugg ci kanamu taxi fàtte fa un million yi. Hmm. waa bon taxi mi ngi ko yóbboon Thiaroye yaakaar naa côté de caaro Thiaroye la. fan la jógee fa la ko wàccee fii place de l' démb ay. quatorze heures quinze heures mm-hmm. na ko dimbali bu fekkente ne borom taxi moo for loolu wala daa am ko dugg ci oto bi for ko mm. xaalis boobu xaalisu jumaa la ca jumaa jëla jëm xaalis jumaa la na ko fii eh, wala mu contacté ñu ci 77 150 17 17 taximaan boo gisee xaalis jumaa ji andi ko borom fekkee keneen da koo borom onze mille moom ba léegi feeñagul ba léegi feeñagul wallaay wallaay waaw xaalis nag dafa naqaree feeñal nag gor donc mën a delloo de waaw wax dëgg yàlla ak fi réew mi tool waaw jërëjëf Paas ñëwal waxal Motin. Motin Motin. <laughs> Motin ne ko waa Marseille ne na ubbi benn boutique foofu. ah da ngay wër Motin ci réew mi. Motin <laughs> Motin ay at a ngi ni ma ko wër mënuma gis. waa Marseille na foofu. ziar nañ ko bu baax man maa ngi nuyu saw waa ji Jili. Jili man CSB Jili CSB sama xarit la. nit ku ah. baax waaw Jili depuis cité kër góor gi. Jili da daje woon nañu man moom France. a naa bu baax nit ku baax Jili kooku exemple la ci réew mi. waaw référence la jàmbaar la ko ñafekat la nag jàmbaar dëgg la jàmbaari Serigne Touba la xam nga jingalu xalaas bi fan ban si ban son la jógee live tv <laughs> mooy bi Youssou Ndour woyoon en 92 réalisé ko en 2002 <laughs> visionnaire mën la ñu dem allo présidence maa ngi ziar sama waajum jërëjëf le premier anniversaire <laughs>